numéro 9 bi moom mu ngi dox ba léegi mais est-ce que wóor na. numéro à tout moment balle mën na ñëw numéro 9 a ngi dox ba léegi kenn jàppagu ko. Ah. numéro 9 bi yoroon arme de guerre bi anamu. Ah, ah, mais ñun ñëpp ku yeboo di sol gilet par balle. à hmm. tout moment hmm. balle mun na ñëw comme mu ngi dox ba léegi. Hmm. kon vraiment. nañ ñu leeral loolu. loolu day yóbbu Sénégalais ku ci nekk bëgg a aar sa bopp te ñun waruñoo. fa la ñuy aar sa bopp. a ñëpp a ñi fagaru di ut ay gànnaay. numéro bi nag jarta laajte. ah maa ngi la bokk. loolu ñëpp ci teg seen ah, bët mu ànd ah ah, def conférence de presse waxul loolu. waa léegi police ba muy defar conférence de dafa am lu simple. dafa am lu simple. xam nga li tax may wax à chaque fois naan ñii jàng communication ñoo war di liggéey ak ñi nga xamante ni dañ leen a former pour leneen. Mhm. Hmm. nous ne mais police waxul loolu. police waxul ni xam nga xam nga Fatou ñun xam nañ man yow Cheikh Oumar ñun ñi ak ñenn ci ñi ñuy ah, ah, ah, xam nañu y a une police civile boo xam ne bu manifestation amee bu ñu sol tenue. Hmm. dañuy infiltrer les masses. Hmm. yow xam nga ko man xam naa ko. ça c'est ça c'est vrai boo ko xam nga xam ko. ça c'est vrai mais seulement. non balaa bi nañu réglé aspect bi. <laughs> doo jàll beneen aspect <laughs> bii leer ñoom ñoo toog bii na waaw ñoom ñoo toog ñu wone vidéo waaw wone ay nit waaw ñii de wane numéro 9 wane numéro ni ñii de ah. dañu leen gis ci manifestation yi ah. ñu yor ay ngànnaay te infiltré lañ ñu yor ay ngànnaay à ah. préciser ñu jàpp ni ñoom ñi ni mhm. ak ñii ay force occulte lañ euh, du ma ni ay force occulte lañ ñoo infiltré maas yi yor ay fetal lañ mhm. ñu gis ni ñoom seeni troupe Letro

moom. bi ci la fanaan. waaw waaye nag. ci cas de figure bii li numéro 9 bi kii di wax. Mm. police daf ci def communication bi ngay wax. man nag que dañ leen infiltrer. man xam nga lu ma ci gis ban ban ban version lañu war a gëm. man xam nga lu ma ci gis waaw. que ni il fait pas la police civile. ndax mok ñoma and ci sen mais ñoom waxuñ loolu wàcc yor sen mais mais sëñ Sall est-ce que man jàpp mu ni ci benn bi. ah oui même man même man. en toute objectivité. mais mais communication police bi moo ma jaaxal. man la police man mako dégg man maa ko dégg. waaw waa ji boo gisee kenn ki ni muy manipuler arme bi. Mhm. nga xamni ni. professionnel la tàmmul di ko mhm. kenn ki le fait que mu wax loolu rek. mom limu lolu c'est différent c'est le gars qui a le PA. le waaw automatique bokul ak yor man la police mm. voulait avoir la police. Mm-hmm. c'est-à-dire faire de la communication etc ils ont eu le courage et l'audace d'une nous sortir des vidéos. Mm. qu'ils ont mis à la RTS pour l'opinion. Mm-hmm. moi quand j'ai regardé ça j'ai flippé. Mm-hmm. après on a vu d'autres vidéos retombé xam nga tay ci ban jamono lañ nek. les mhm. téléphones ils sont partout. c'est des télévisions maintenant. et tout le monde filme. Comprends comprendre nga. man le problème c'est pas ça c'est-à-dire. Mhm. yow xam nga ne ay nervis am na. Mhm. ay nervis am na. comme ni ko mën aussi moom nangu lay. oui il y a il y a de ces policiers yi nga xam ne dañuy civilu léeg-léeg. loolu loolu moom défendre naa ko. non man loolu il faut que suñu koy. waaye xel mais ñu ne ci pick-up yu weex yi nag ñooñu lan lañ. borom pick-up yu weex yi nag. xaaral am na ay policiers yi civilu. merci oui man de ci ñooñu lay wax mais. am na ñoo xamante ne duñ policier te ñoo ngi fii ci dëkk bi. loolu d'accord naa mu leer naa ñu waa police toog ne am na ñoo xam ne duñu policier ñoo ngi fii ci dëkk bi loolu aussi c'est beneen bi xeetu ngànnaay yi ñu yore ñoom ñoo ne lii arme a guerre la. waaw. gis nga boo nekkee Sénégal yéen ñi doo ko gis. Mhm. ba Cameroun damaa dem génn di dem sox naan damay wuti soow bi ma dajee ak ñay ñett yi toll nii ngand yu punkal yu mel noonu lañ yor ma ne lii suñu dëkk ramasse amu ndax police Pikine buñ lay ramasse waaje mënoon sax du ko yor yenn saa yi mbaxane sax lay dóor ñëw eh, ànd ak yow te la ñuy civil dina leen gis c'est-à-dire le mm. de de se la bal mm. am na loo xamante ni 2021 xew na fi mm-hmm. boobu leeragu néew yooyu lijjanteeguñ ko mm-hmm. ñiy balu fetal balu fetal bi fu mu jógee. Mhm. te police buy def quand force de défence bu ñuy dem. dañuy compter munitions yi dañuy compter munitions yi. xam nañ kan moo ko yore. Mhm. kan moo ko warta yore. waaw ci ban anam la ko jëfandikoo. Mhm. donc tey la police a intérêt même à se laver à grande eau. à se laver grande eau. bu fekkee dafa am ñu leen rax. ba am la police. ba am la police. carrément parce que lii nii mënul continuer parce que grand dañ ko waxante. fii Bougane suy déplacé wu ay punkalam lay àndal. Sonko buy déplacé wu ay punkalam lay àndal. sëriñ bu siy def conférence sax say say punkal ngay àndal. politiciens yëpp. mais parce que réew mi aussi parce que ñoo yee nag. waaw mais parce que réew mi kenn xamul fan ngay fan ngay fan ngay fan ngay génnee. cay oui c'est-à-dire tamit insécurité bi. xam nga def nañ fi élection présidentielle vous vous rappelez. Mm-hmm. Tambacounda mu am ay rayante. Mm-hmm. diggante waa PUR ak waa Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. am ñu ci faat. comprendre nga pour man milice warul am. on va se des histoires de gros bras on va se retrouver et puis impunité quoi carrément. Mmh. c'est-à-dire on peut tuer facilement je dirais pas que mais ci biir policier am na ñu ci gaañ te police communiqué wu ko. Mhm. am na policiers yu ñu gaañ. Mhm. nga tiim ñu sénégalais mën a tiim mook sénégalais jël brique dóor ko ko ci digg bopp. quand yooyu yëpp dañ ko war a leeral jàmbaar. Mhm. maintenant nag toog fii. pour gagner nous pas pas génn ils nous ont communiqué. d'accord le dernier mais nous avons droit de gommer très bien d'ailleurs c'est mm. France 24 qui nous sort. Euh, des vidéos. d'accord le gars comment un expert. maintenant il faut il faut qu'on avance. je parle même pas de numéro c'est la leader. Oui. moi j'ai dëgg. chili mhm. par exemple. Euh, le président de mu ngi il Il il yi faatu. Mhm. sénégalais. Mm après avons émission du parce que nous jël ñuy dem marque ñuy fay million voyage conditions mais est-ce que nous l'indépendance leen dégg ñu avons ñi faatu mm-hmm. de non non def que le conseil des ministres. oui mais d'accord je veux dire. quand deux éléphants se battent c'est l'arbre qui en souffre. Mm-hmm. après des gens vont mourir. il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura absolument rien du tout. Très bien. Mm-hmm. c'est une vérité alors waaw mais xam nga loolu. waaw soo daanalee ma ñëw ak sama question cette communication par rapport aux forces occultes dafa am loo xam ne. Mm. dafa xew ci nos gouvernants mooy gis nga sa euh, fameux nouvel ordre mondial bi ñu doon wax du temps de la Covid. Mm. loolu noonu moom la ñuy instaurer mooy politique de la terreur terroriser les populations pour que ñu mën leen yemale ci benn ruq xam nga les gens boo leen gëm looyee ne y a des forces forces occultes qui circule mais bu yàggee buñ ñu bëggee manifester sax dañ koy xalaataat dañuy dañuy yéex a génn wala dañuy ragal a génn loolu politique de de la terreur et c'est fait sciemment

gendarmerie euh, ñu ngi def ay rappel ay ci rang euh, de défense et de sécurité yi ay anciens militaires yi nga xam ne. Mhm. dañoo dañoo recrutés. ñu ngi di mhm. en même temps ñu ngi dégg des ay munitions ñu koy pour le pour le palais de la république Nous, ñun nag ñun sénégalais am nañu droit laaj. Mhm. lan la Sénégal di Sénégal di waaj justement compte tenu de toutes ces euh, situations là. ah xëy na xeex la ñuy waaj mais yaakaar naa ne sénégalais yi ñoom woote wu ñu xeex. parce que Sénégal euh, nit ñi fi nekk wax dëgg yàlla man dama ne ay muñkat lañ. Mhm. ndax lii fii am ci ay rapport ñuy génnee ñuy gis seen alal ñu koy saax saaxee ñuy gis ay détournement de deniers publique ñuy jël biens yi nuñ koy accaparer. groupuscule de personnes di jël ay terre di ci teg tànk ak teg ci loxo. ñëpp sénégalais yi ñu ngi koy gis te taxul ñu génn di ci rayante pour moins que ça ay dëkk dañuy génn di rayante. Mhm. kon cette population ko jiitee. am nga leneen loo leen war waral lu mooy di leen woo ci fitna bay recruter. xoqal tiitalaate boobu pour lan sénégalais yi xeexuñu. Hmm. xam nga sénégalais yi ban arme lañ am. seen hmm. carte d'électeur. tout à fait.

mais du ay fitna sénégalais mérité wuñu mais hmm. ben sénégalais ne pas cela donc ben mais est ce que aussi dans l'ordre normal des choses parce que ñun tamit ñu ngi mais est ce que dans le cadre de euh, de la sécurité intérieure je sais pas xam aujourd'hui ñun ay thématique rek la ñuy andi. Mm. mais il y a des choses yi nga xam ne. Mouhamed tu es terrorisé. ñun dañ koy dañ koy tek sur la table. Mm. pour pour pour am ci ay ay tontu. aujourd'hui ñoom ñom ñoo ñu waroon a mën a recrutement yi ngeen gis ginnaw police ak gendarmerie bi ñuy def ci militaire yi. ay munitions yi ñuy jënd pour parler de la république. lii moo tax ak lii ak lii ak lii maintenant comme ko waxuñu si ñun itam sénégalais rek. non non Mouhamed même avant même yi on dañu ne. ñi waroon dem retraite fii ba déwén. Mm-hmm. juillet déwén. Mm-hmm. dañ leen téye dañ leen maintenir. kon lan la ñuy waaj même sax dañ koo dakkal fi mu toll nii ci armée bi. lan la ñuy waaj Mouhamed. kenn xeexul. xaw ma ñoom lu ñuy waaj de mais sénégalais yi moom xeexuñu. da ngay poser la question. Mm-hmm. kan moo wax ni ay ngànnaay dañ ko jënd pour parler de la République. Mmh. Mmh. Mmh. Bougane Gueye. En quoi koy l'information. ah ko non, non Non, non, non. non non. non il ne faut pas. d'accord non c'est-à-dire un état est très sérieux. un état est très sérieux. gis non fi bu non, euh, ministère bi yor walu je pense environnement la xawma pour les eaux et forêts et tout cela ñu jënd ay armement mm. ñu dem ba ci biir ñu léralal ñit ñi li nga xamni ne xew ci biir fofu non mm-hmm. deuxième chose le palais de la République du Sénégal la zone la plus sécurisée du pays mm-hmm. soxlawul ay munitions yu jëm ci palais bi gis nga nit mm-hmm. amna lo xamni xam ni président Bougane da koy faral di wax bu wax di nopp yu koy dégg wara wér ni garantir la paix la, sécurité du palais c'est la gendarmerie et l'armée mm-hmm. bu ñuy jënd ay munitions pour palais de la république fofu lañ koy jëndé mm-hmm. loolu du wax dire xamni man me concernant dina ko jël wala di ci débattre mm-hmm. deuxième chose nday faat jàmm moo tax ñu mëna liggéey ci ci période manifestation yi amone le premier ak le deux rek ñu bari mënu ñu wona génn bay liggéey si ci biir télé bi pou dir nakal sekurite ame yon djarin ki amri yo ta pou evite bavir yo bare bare eske yon de f la diferans de ber e rouge e le ber e ver hamga yon ti jemi, yon sol ber e rouge mwen yon sen formasyon diyech bon yon gen yon sol ber e ver mwen yon nek an formasyon, nek bir ekol polis pare gounou pare gounou ndax technique yi ñu war a xam yépp xamaguñ ko mais nekk nañ en face d'une masse boo xam ne dañuy obligé génne leen pour ñu prêter une main ñi nga xamante ni ils sont déjà formés donc mieux vaut ñi nga xamante ni ils sont déjà formés te tay di nekkuñu ci biir mais am nañu xam-xam boobu ba pare ñu jël leen parce que kon tu as tu as répondu à ma question c'est dans l'ordre normal des choses waaw dafa am fu ma jëm parce que ñun. ñun yow wax nga est-ce que nous di wax rek. nous ne sommes pas le ministre de l'intérieur hein? nous ne sommes pas là-bas. mais nous war a dimbali on n'a pas reçu les renseignements qu'ils ont reçus. Mm-hmm. est-ce que ceux qui sont formés. Mm-hmm. nekkuñu ci biti lëkkaloo ak ñeneen di def leneen ba tax ñu bëgg leen recruter. waaw pour parce que gis nañu ni lii di xew. c'est des stratégies bien en des gens bien entraînés. ñoo koy def parce que Cheikh Omar bu la nee tey gis na d'ailleurs mm-hmm. de manifester dem ceinturer la brigade bi. ba policiers yi tal maanaam garantir biir brigade bi ba mënuñoo génn pendant ce temps il nekk di toj bagage su jàmbur ce n'est pas une stratégie da nous bien sûr stratégie donc c'est une bonne chose mm. et les stratégies de la police et de la gendarmerie y compris l'armée du nous sommes des civils conseil de sécurité on ne siège pas à la table ce qui est déplorable <laughs> moi, ñoom hein? ils doivent être munis des gens bien formés par rapport à la communication. D'accord, c'est clair. Qui utilisent la sociologie sénégalaise. Nous sont en mesure de communiquer avec les Sénégalais pour que cette terreur dont on parle soit éradiqué, que nous puissions avoir la bonne information pour pouvoir vivre à l'aise dans notre pays.